sappoor dëkk fi fërëb dëkk fi ñoom Jalle Sarr ay yeneen champion. ñuy génn di ci làmb si àll bi di jël ay làmb ñëw fi làmb ji toog. dafa ñaaw di ko xañ ay nit. barki alxuraanu ko ne damaa am lu ma lii moo may dundal. dëgg la lii bu ma gisee ku ko yaa damay métti lool barki alxuraanu ko. la léegi yow Ndiol yow lan ngay wax lan ngay wax lan ngay wax booy booy ci town bi comme ñiy créé genre affaire bi. booy danoo réew. danoo réew gis nga mbër boo koy jàppale boo ko jàppale si violence mbër boo ñëwee si làmb ànd moom toj làmb moom nga yàqal yàqoo làmb ji dëgg la dégg ndax mbër mi li muy daw noonu si lay dimbali ay waajuram mhm. boo yi ne fii danoo xamadi amuñu yar ñoom ñëpp a yem alxuraanu karim te xamuñu làmb lii du làmb Mm-hmm. Untuk duggoon ci làmb kenn du am fitu sax jaar kon ay yett sàppi la su dugg ci àll bi boo jaaree ci géew bi mun noo xool ba nga dul te du mujj fen mm-hmm. te police du fa taxaw gendarmerie du fa taxaw mais la moo tax loolu mënul am fii te làmb ji day egg naa dafa ñaaw ñu liñ teg eh, liñ teg mise bi matul trois cent mille matul trois cent mille moos àll bi ay millions la ñuy teg te làmbay bu bu bu lay toog ci discipline facilement li muy boo duggee suñu séeréer ñu yaatal ah yow mbërikat yi bu ñu ñëwee du bëri mbër bi fi dëkk moo war a am compréhension. dëgg la mais mais est ce que jëlul tamit Zilo est ce que jëlul tamit gars yi wut commission pour ñuy réglementer parce que arbitre bi tey ku gis ni mu doon arbitré nga xam ne kii peut être dafa ragal mbër mi wala ñemewul ni muy def. commission bu fi ñëw day daw. barki alxuraanu kan c'est-à-dire fii du mas a defoon si làmb ñun bu ñu juddoo ba tey lii la ñu am. ci mental lii man loolu moo tax du ma fi bëree. ndax man du ma bëri si làmb yu wallaay nga làmb mooy sama métier wala sama kanam gi ni mu ñoree non lacrymogène yi day gaaw jot sama ñett ay di jaar fu ne dama am sa dal ci mais bu dee ñi ñu doon manifester lii la ñuy la ñuy daj euh. non lii manifestation jarul lii lu Macky Sall la